Touba am na ci benn Ziguinchor am na ci benn juróom-ñaar fukki malade ak ñeent ñu ñi entré woon ci hôpital yi wér nañu te bu ci yàlla àndee dinañ génn tey fanweer ak juróom-ñaar ñu ngi ci réanimation ñeent doomu aadama ñu ngi ñoo ci ñàkk seen bàkkan ni ki démb talaata juróom-ñaari fan ci weeru juillet bi bi ñu nekk ñeneen ñi nag ñi des ñu ngi am tan ci bésu tey dalee ko ci kaabu njëkk bi mas mi duggee ci réew mi senegal jot na waññi juróom-ñaari junni ak juróom-benn téeméer ak juróom fukk ak juróom-ñaar ñi nga xam ne jot nañu am doomu jàngoro ji ci ñooñu nag juróomi junni ak juróom-ñeent fukk ak juróom-ñaar wér nañu téeméer ak ñeent fukk ak benn ñoo ci génn àdduna mu des ñaari junni ak ñeent téeméer ak fukk ak juróom-ñett ministère de la santé mu ngi jaal ñi nga xam ne ñoo ci ñàkk ñu euh, mbokk yi nga xam ne ñoo ci génn àdduna di jaal di ko jaal seen mbokk di leen ñaanal aussi yàlla xare leen àjjana di gën a ñaax askan bi ñu gën a sàmmoo ak digle yi ñu joxe waaye ministère de la santé et de l'action sociale mu ngi jaajëfal ñi nga xam ne ñu ngi koy jàppale ba léegi duggal seen loxo ci xeex mbas mbas mi maanaam boo seetoo boo seetee ci réew mi yépp gouverneur yaa ngi ci préfet sous préfet ak commandement territorial yépp ñu ngi ci acteurs communautaires yi aussi ñu ngi ci ñu kenn maire yi chef de village yi association yi waa Croix-Rouge acteurs communautaires yi relais yi bajjenu gox yi fàttewuñu kenn agent de santé yi tamit ñu ngi leen di jaajëfal ñi nga xam ne ñoo nekk ci secteur public ak ci secteur privé bi yépp ñu ngi leen di sant di leen gërëm wasalaam